nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission yi weesu doon nanu jàng ci tawret ba gis ni yàlla aji sax ji binde nit ñu jëkk ña ci melokaanam jàng nanu it lu tax yàlla sàkk leen yàlla dafa bëggoon ñu bëgg ko ak seen xel mépp ak seen xol bépp ak seen kàttan gépp bay màgg ci diggante bu xóot te neex ak moom ba faaw ci kaw loolu nag gisoon nanu ni yàlla tege woon nattu bu woyof ci kanamu aadama ngir gis ndax bëgg na ko ci biir xolam ba déggal ko laata ñuy sàkk jigéen ja fekk na yàlla dénk aadama ndigal lii mën nga lekk ci bépp garabu tool bi waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faw nga dee noonu la yàlla nattoo woon aadama di ko artu ne peyug jàdd yoonam mooy de di tàggaliko ak baaxaayu yàlla yàlla sopp na adama te dafa bëgg mu bokk ci moom ba faaw wante ci njàng mi weesu gisoon nanu ni adama ak awe tànne déggadil yàlla topp iblis ba lekk ci garab ga yàlla tere woon tey jii nag fas nanu yéene wey ci tawret ci ñetteelu saaru téereb njalben ga ba gis la xewoon gannaaw ba aadama ak awa lekke ca garab ga yàlla tere woon ci ay juróom ñaar mbind mi neena seeni bët daldi ubbeeku ñu xam ne def nañu yaramu neen ñu daldi ràbb xobi garabu figg laxas ko ci seen ndigg lan la aadama ak awa jëkkoon a def gannaaw ba ñu dégg dile yàlla dañu doon fexe muur seen gàcce jàng nanu ba noppi ne laata aadama ak awa di lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon yaramu neen lañu defoon te amuñu ci woon kersa wante léegi seen xalaat ci lu jëm ci seen yaramu neen soppeeku na léegi yëg nañu seen tooñ ak seen gàcce fa kanam aji sell ji leen war a àtte naka noonu ngir muur seen gàcce ñu daldi ràbb xobi garabu figg laxas ko ci seen ndigg noonu mbind mi nee na gannaaw loolu ñu dégg tànk yàlla aji sax ji doxantu ca tool ba bi ker gi seddee ñu fexe nëbbu yàlla ci biir garabi tool ba ni seen bàkkaar soppee lu bari ci ñoom aadama awa bala ñuy tooñ yàlla dañu doon bég bu yàlla aji sax ji jaaroon ca tool ba ngir waxtaan ak ñoom waaye léegi bi ñu déggee yàlla di jege dañu tiit bay lox daldi rus di fexe nëbbu yàlla ci biir garabi tool ba lu tax aadama ragal te nëbbu loolu jafewul a xam su fekkee ne am na koy sàcc ci toolu jàmbur te mu dégg baatu boroom tool ba lu muy def dafay fexe nëbbu naka noonu aadama mi jël li yàlla tere woon doon na fexe nëbbu aadama xamoon na xel ne tooñ na yàlla ndax aadama waroon na tiit gannaaw ba mu jàddee yoonu yàlla aha kay lu tax nag ndaxte yàlla newoon na ko bu leer bés boo lekkee ci garabu xam lu baax ak lu bon keroog faaw nga dee ndax yàlla dina def li mu waxoon loo ci xalaat ndax aadama dina dee ndax yàlla dina mbugal nit ñi mu sàkk laaj boobu mënees na ko tonto ak beneen laaj lan la yàlla aji sell ji defoon lucifer maanaam seytaane gannaaw ba mu bañee kilifteefu yàlla ndax yàlla jéggal na seytaane ak malaaka ya bàkkaaroon jéggalu leen de yàlla dafa leen dàq fu sore jataayam bu sell ba rax ci dolli dafa leen sàkkal safara du sudul fay mukk ni seytaane adama dafa bañoon kilifteefu yàlla ndax yàlla mënoon na wax rekk ah amul solo bàyyi aadama bañ ko àtte mukk yàlla ku sell la te faw mu àtte bépp bàkkaar mënul dékku bàkkaar ci loolu kàddug yàlla nee yàlla dafa sell ba mënula xool bon te mënula dékku bàkkaar borom bi dina àtte ay gaayam ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxo yàlla ji dund waaw jikko yàlla ju sell ji dafa laaj mu àtte te mbugal bépp bàkkaar naka noonu faaw mu àtte adama ak awa ndax seen bàkkaar looloo tax ci aaya bi ci topp nuy gis ni leen yàlla wute mbind mi nee na waaye yàlla aji sax ji woo aadama ne ko ana nga lan la yàlla defoon gannaaw ba aadama defee bàkkaar yàlla dafa ko wuti woo ko ne ko ana ndax aadama wuti woon na yàlla déedéet dafa ko doon nëbbu sax lu tax yàlla woowu aadama ndax xamul woon fu mu nekk yàlla mi xam xalaat yi ak mébéti xool yi xamoon na tembe fu aadama nëbbu yàlla dafa ko woo ndaxte dafa bëggoon aadama gis te nangu bàkkaaram ci kanamam aadama nag lu mu tontu bi ko yàlla ne ana mbind mi nee aadama tontu yàlla naan dégg naa say tànk ci tool bi te ragal naa ndax dama def yaramu nen ma dal di nëbbu yàlla aji sax ji ne ko ku la xamal ne danga def yaramu nen ndax danga lekk ca garab gamala la tere woon aadama tontu ko jigéen ji nga ma jox ngir mu ànd ak man moo ma jox ci garab gi ma lekk noonu yàlla aji sax ji ne jigéen ja lu tax nga def loolu jigéen ja tontu jaana ma nax ma lekk ci ndax dégg ngeen ni adama ak awa tontoo woon yàlla ku nekk di fexe takkal keneen ki aadama tuumaal yàlla ak awa naan man ma dara jigéen ji nga ma jox yow yàlla moo tooñ awa moom teg jaan ja tooñ naan du man de jaan ji la moo nax wante yàlla mi xam xolu nit xamoon na ne ñoom ñaar ñépp a tooñ yàlla lekkloowu leen ci doomu garab ga seytaane itam lekkloowu leen ci seytaane mën na fiir nit te nax ko waaye mënul la bàkkaarloo ak doole seytaane naxoon na awa wante moom ci boppam moo tànnoon lekk ci doomu garab gi ci lu jëm ci aadama mbind mi nee na seytaane naxu ko aadama tànnoon na topp yoonu boppam di yoonu iblis aadama xamoon na xel li ko yàlla santoon wante dafa tànn jàdd yoonu njub topp yoonu njubadi te yamul ci déggadil yàlla waaye dem na ba tegale ay bàkkaar ci li mu fexe teg keneen tooñam ba tey nit ñi dañuy fexe teg keneen seeni tooñ waaye yàlla xam na dëgg gi jaare ko ci mbind mu sell mi yàllaa ngi wax ak nit ñi naan ana nga tontu ma loo def lu tax nga bañ a gëm te déggal sama kàddu lu tax nga xeeb sama mbaaxaay lu tax ngay teg sa morom tooñ ni mu wóore ne maa ngiy dund ni la wóore ne ñépp dinañu ma sukkal te ku nekk seede ne may yàlla noonu ku nekk ci nun dina layyi fa kanam yàlla ci lépp loo ma sa def léegi nag nanu jëm kanam ba dégg ni yàlla àttee jaan ji ak seytaane ak awa ak adama mbind ci kaw loolu yàlla aji sax ji ne jaan ja gannaaw def nga loolu alku nga ci biir rabi kër yépp ak rabi àll yépp dinga watatu di lekk pënd sa giiru dund gépp dinaa def mbañeel ci sa diggante ak jigéen ji ci sa diggante xeet ak xeetam dina toj sa bopp te dinga ko màtt ci tëstan yàlla ne jigéen ja dinaa def coono ci sa matu te ci metit ngay wasin dinga xër ci sa mbëggeel jëme ci sa jëkkër te moo lay yilif mu ne aadama gannaaw dégg nga sa waxu jabar ba lekk ca garab gamala tere dinaa rëbb suuf si ndax yow ci kaw metit ngay jële sa dund bés bu nekk sa giiru dund gépp suuf si dina la saxal ay dëkk ak i dagg te ci meññeefu tool yi ngay lekk ci saw ñaq ngay jële li ngay dunde ba kere ngay dellu ci suuf fa la jële ndaxte pënd nga te dinga dellu nekk pënd ndax gis ngeen li seen bàkkaar jur coono ak metit dëkk ak dagg suuf su wow ak ñaq feebar ak dee waaw peyug bàkkaar moo di dee lan la yàlla digoon aadama ak awa suñu lekkee ci garab gi mu leen aaye woon newoon na bés boo ci lekkee keroog faawu nga dee ndax suul nañu aadama ak awa bis bi ñu lekkee ca garab ga déedéet wante ndax dee nañu ci bis boobu waaw waaw naka ni nu ko gise woon mbind mi dafa nuy won ne dee mooy tàggoo ak yàlla aji dund ci ci bés boobu adama ak awa dee nañu ci seen ruu ndaxte amatuñu woon digganteeg aji dund ji ba adama ak awa déggadile yàlla tàggale nañu seen bopp ak yàlla ndegam tànn nañu gëm bañaaleb yàlla te ànd ak moom kon bokkatuñu woon ci dundu yàlla ci misaal su fekkee ni danga am ab noon te sa xarit tàmbale di ànd ak moom kon sa xarit boobu sa bañaale lay daldi doon du dëgg ni ñuy waxe ne sa xaritu noon sa noon la naka noonu itam kuy déggal seytaane noonoo ak yàlla bala nuy àggale sunu waxtaanu tey am na lu nu war a xam te fàttaliku ko loolu mooy aadama mi bañoon kilifteefu yàlla mooy baayu képp kuy dund bés ba mu moyee ndigalu yàlla ca la daldi nekk bàkkaarkat te naka noonu doomi adama yépp ay bàkkaarkat lañu janax du jur lu dul luy gas te lii it am na bàkkaaru aadama tax mu tàggalikook yàlla naka noonu doom aadama yi it tàggalikoo nañu ak yàlla mooy li wolof naan musiba du yem ci boppu boroom sunu maam aadama mi tàggalikook yàlla dafa mel ni caru garab bu ñu dog sànni luy xew su fekkee ni car wi bokkatul ci garab gi day wow dee te car wu nekk am na ay car yu ndaw luy xew ak car yu ndaw yi bokk ci car wi ñu dog ndax ñoo ngi dund déedéet dee nañu tamit ndaxte ci car wu wow wi lañu bokk naka noonu doomi aadama yépp dañu mel ni car yu ndaw yu bokk ci car wi ñu dagg ndax bàkkaaram aadama moo di car wu wow wi te ci moom lanu bokk nun ñépp a bokk ci sunu bàkkaaru maam aadama te dëppoo ak moom jikko moo tax yonent yàlla daawuda bindoon ci sabuur naan juddu waale naa ndëngte sosoo ci bàkkaar ci sama biiru ndey bàkkaar dafa xaw a mel ni jàngoro ji ñuy wax sida ku doomu sida dugg ci sa yaram du ko bàyyi abadan ku am sida mën na ko wàll doomam sida dafay rey te amagul garab gu koy faj noonu la bàkkaar mel musiba mu wër àddina la dafay rey sànk nit ñi ba faw te nit moom ci boppam amul menn pexe ngir faj ko wante nu ngiy sant yàlla tey ak xol bu sedd guy ndaxte yàlla ci boppam joxe na pexe mu sunu ko jëfandikoo dina nu musal ci dooley bàkkaar ba faaw kon mbokk ci émission bi di ñëw ci coobare yàlla dinanu àggale ñetteelu saar wi ci tawret ba gis ni yàlla digge woon aadama ak awa ak nit ñépp dig gu neex lool ci mbirum musalkat bu am doole bi naroon a ñëw ci àddina ngir musal bàkkaarkat yi ci dooley seytaane ak bàkkaar ak safara jërëjëf ci déglu bi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci dëgg gu am maanaa gi leen yàlla bëgg xamal tey kàddug yàlla nee na bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar